برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان رنا ñepp ko mëna dégg ndax dafa wax ne suumu li ru'yati mu ne xaasi xaasi li koy firé mooy suumu li ru'yati llahi tabaraka wa taala ñooñu tooguñ di xaar weer yàlla lañ gis si borom door naa ah koor mooy nga jàpp jàpp ci lu nekk li ñu la tere bàyyi mu ne day def fekkee xaasi xaasi la na mooy ñu jàpp ci yàlla rek ñu jàpp ne loolu amul hmm. waaw loolu nag mooy koor gi gën a kawe yàlla ñu ko yàlla may ñu lépp yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam bañ màng ko ci anam googu yàlla nañu yàlla wattul boppam hmm. lépp duñ ci def tam jaamu ko bu ñu ngërëm moom rek la yàlla ñu gërëm yàlla ñu boole itam ci jullit yi gëm nga xam ne may yi muy mayee ci biir koor bi danañ ci am cër bu la wala wala yàlla mën na loolu yàlla na ko def weer ngi xam ne weeru barke la barke yàlla na wàcc si ñun bu weer bi demee sox yàlla bu barke boobu def yàlla na des ak ñun ci suñu dal ak suñu daal yëpp ñu waaye rek suñu barke moo leen fu taali bi nekk daal xamal ne maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay yàlla ñaan yooyu ma ñaan yëpp

barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan